Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. spectateur ñuy seetaan ginnaaw bi leen nuyoo ñu ngi rafetlu ànd bi ak Equivox TV te nag dañoo wàccaat sur le terrain ngir waxtaan ak li ñeewal wàllum maltraitance bi nga xam ne dañ ko nemmeeku léegi ci daara yi ba démb rek ci mujj fële ca Linguère taalibe bi nga xam ne dañ ko faa faat door ko ay yet rek ba may jaar fa faatu loolu nag lañu wàcc sur le terrain tey waxtaan ci ak askan bi bu ko defee rek ngeen daal di topp. Euh, jamono day dox. di gën a yàqu quoi daara moom am na daara yoo xam ne yi fa ñu nekkoon démb ñu nga fa ba tey maanaam seen lekk ñu wekk ko ci yàlla waaye dafa am daara yoo xam ne genre wu léegi GIE la groupement d'intérêt économique ndax daara boo demee ba fekk da nga koo taxawal di xëy di sas taalibe bi na ko nag ma indil nangam wala ngay def ay ay image di di leen photo di leen yónnee bitim réew pour ñu dimbale la loolu nekkatul daara man je pense que nag genre daara yooyu ñooy def musiba yi ñuy wax solution bi ñu war a mën a indi du yomb de ndax nit ñi dañoo xis ba départ ba pare pour delloo leen ci yàlla du yomb te contrôle aussi contrôle bi ci war mënee su ko ndax boo nee daara rek ñi nga xam ne daara normal la ñu yor dañuy daal di jog fokk fekk na ci la ñu bokk te bekkuñu ci ñi ñuy wax xam nañ leen gis nga biñ nee daara ba léegi ku nekk même même daara yi foo dem daara yi dañoo bëgg a xeex daara daara notot c'est pas ça man ñëw naa Dakar gis naa taalibe yoo xam ne il passe toute la à demander de le monde kon ñoom ban heure la ñuy jàng ñooñu la ñuy wax ñooñu ñu dara xeex lañ parce que booy xool sax dokkuñu ñu fi quoi ay bitim réew lañ ut koom-koom rek moo leen fi indi. jàngat gi mu ci xam naa ne bëriwul lool ndax faat moom loolu dafa ëpp ndax defe naa ni jàngale kese defe naa ni dóor sax war ci ndax defe naa ni comme ñun daanaka ay murid lañ te gis nañu yàgg nañ dem daayira ñëpp dégg nañu njurul dégg nañu Serigne Saliou am na fa amoon na façon taalibe bu ne. waaye kenn musul dóor taalibe moom taalibe yooyu moo ko gënaloon sax ay doomam yu mu jur ak i taalibe te boo xoolee moo taxit ñoom ñëpp ñi ci yéen ñoom ñëpp tey fu mu toll nii ñi ngi jàngale te kenn musu leen dóor kenn musu leen def lu metti moo waral tey ñoom ñëpp jëriñu seen jàng waaye nag problème bi mooy nekk man damay dama dama jàpp ni Sénégal xam nga sëriñu daara léegi ku jot rek nekk sëriñ dañu war a ñu seppi tànn ñan ñoo war a doon sëriñ daara ndax éducation la nit ki defe naa ni boo amul éducation yow warloo mun éduquer te defe naa ni am na fii sëriñ daara yu bëri tur la rek mais ñoom seen jëmm matuñu loolu ba du yoon ndax boo xoolee kii nii maanaam dóor ba rey ñàkk mat bi nekk ci moom moo waral tey lii am man dama koy ñaawlu te lii dañ ci war a jóg ndax moom fu mu nii daan dafa war dal ci kawam ndax ñëpp xam ni lii du yoon waaye nëppal nëppal bi ñuy def moo dul yoon. waaye nit moom xam nga nit lu ko rey dafa yomb na yàlla baal baate man dégg sax lu gën a garaaloo nit di doomam nit ci boppam moo fragile au fil du temps ngay dóor di door di door boo am boo amut limite ci moom boo ko defut boo bàyyiwut day dee de te fekk na dóor bi rey ko quoi dafa am doom aadama yoo xam ne dañoo oyof man am naa doomam. mais léegi dafay defar ay dégâts boo xam ne bii su ma ko mënul muñ damay dem su ma nekk du mu di ma metti mais xalaatu ma dóor ko sax ndax xam naa ne loolu mun na ma cee fekk sëriñu daara yi parce que xam nga lu tax euh, français maanaam boo gisee mun a am pédagogie alxuraan am na pédagogie sëriñ daara yi nañuy seet ku mën a di la ñu di leen jox mu mën a jàngale dóor bokkut ci maanaam mun a jàngale mu pour xupaate dong la waaw dóor aussi ay limite la am comme ni ma la ko waxee rek am na foo xam ne bii foo àggee boo sentir ne kii nakkatu fi par exemple mu jooy ba jooyatut nga xam ne boo bàyyiwut dangay am nu la naqari léegi nga daal di koy bàyyi non no non parce que man bu may jàng français jour yi nga xam ne daawuñ ko jàng école moom lañ doon jàngi daara quoi jàng la dem ak tey xaajut booy benn bu dem bi nag des na fi waaye bëreetut de bu dem bi des na fi waaye bëreetut de ndax euh, bu njëkk nañ doon jànge ak léegi du benn dañ la daan bindal nii àll ba nga dem jàng ko léegi nag ay téere rek lañ lay jox ñun dañ doon jàng bu bàyyi bala ngay jot ci téere yi sax dina fekk daanaka ngay bëgg a wàcc àll ba si aussi bu ñëwee kër gi fu na lañ leen di sànni maanaam euh, maanaam euh, nu mu tuddati euh, fonk bi ñu war a fonk alxuraan yooyu yëpp daanaka day bëgg a disparaître ci ay daara yoo xam ni comme ni ma la ko waxee rek du ñuy daara de ay groupement d'intérêt économique lañ dañ ciy ut alal ah, man li fi xew nag bëri na lool rey yi bëri na man rafetuma ci lenn ci rey yi ñu fi nekk ci dëkk bi mais plus particulièrement man maa ngi maa ngi jox toor ñi nga xamante ñooy ñi jur seen doom daw responsabilité tax ñu ko yóbbu daara sans suivi ba lii di dal seen i doom man nongo rafetlu ma loolu bu ma sañoon tey ku jël sa doom da nga koy jël ci duggal ko ci daara boo xamante ne responsabilité bu doyee nga fa ak sécurité bu doy ndax li ñaaw na rafetul ci gis-gis rafetul ci daara parce que lii dafa yàq image yu daara daara boo xamante ne dañ fay yóbbu ay xale ñu leen di woon adduna di leen jàngal l'islam di leen jàngal daara est-ce que comprendre kon jàng wala foofu pas pour lañ yóbbu di leen torturer ba dee di ci am loolu man nongo rafetlu ma loolu ñàkk responsabilité jur sa doom war a jël sa matuwaay sa doom yóbbu ko ci daara ji nga xamante ne boo ko dugal fii di nga xam ne sa doom am na muccukaay parce que doo ñëw xool daara joo xamante ne amul benn sécurité lekk bi amul faju gi matewul naan gi matewul faj euh, euh, euh, tëddaay bi mattiwul nga jël sa doom ci daw responsabilité duggoo ko ci daara joo xamante ne wóor na la fii sa doom jàng bi mënu fi am jàng bu mucc ayib loolu tax may la ma rafetlu def ñaawteef bi lenn la moo fi nekk dafa am une part de responsabilité de lu ñuy bañ ñu wax ko ñun dafa am lu ñu moom ci suñu diine mooy li yàlla wax teg ko fi ci kaw jaam ñi nga xam ne moo fi bind jaam ñëpp tey ne ku dagg sa loxo ku sàcc nañ dagg sa loxo ku fi rey ñu rey la. gannaaw na ñun affaire u Amnesty International dañoo sonal ci wàllu jël jël naan droit de l'homme mel ni ki dee amul droit droit de l'homme d'accord am na mais nañ ko teg ci yoon mais lu yàlla wax ci jaam ñi nañ ko appliqué tey bu fekkoon ne tey gàmbee ngi nii giñ fi reyee doomu aadama ci jigéen rey jëkkëram bañ fi reyee ku jigéen déggatoo ku fa rey ci Gambie mais tey fi mu ne nii da nga dem États-Unis ñoom ay chrétiens lañu mais am na fi ay états yoo xamante ne droit de l'homme am na fa mais peine de mort am na fa da nga fay rey mais dañ lay rey mais fii Sénégal nous sommes quatre quinze pour cent de de de la population musulmane que de chrétiens mais pourtant laïcité bi ñu bëgg imposer d' accord je n'en disconviens pas parce que y a des y a chrétien musulman mais tey boo fi tëraloon lu wax war sa sa ça doit être valable que ngay nekk chrétien wala nekk musulman boo fa ñu rey na bu ñu ko defee benn léegi gars yi am jàmm ci rey. waaw man nag dam daara gi dam ci yàggut non bi foofu noonu nag moom kenn mësuñu dóor waaw dóor moom ñu si yoon am waaye maanaam boo boo defee lu dul yoon da dañ lay pini doo foo te da ngay fanaan a jàng loolu moom daan nañu ko def moo li ñuy naan fu ndox doon taa ba léegi boo demee fekk fa teppi teppi ndax tey ji nii yow boo juree maanaam doo sànni te tey ji sëriñ bi nga xam ne tey ji nii moom am na doom xam na lu si jur fonk na doomam tey ji defe naa ne moom doomu jàmbur bu ko téye da ko war a jàppe comme doom ndax du dóor mooy corriger dóor corriger wul ndax tey ji nii bëri na ñoo xamee daan nañ dem ay daara ay fastu rek ay affaire yooyu dëng moo tax ñu yóbbu leen fa dañ fa jógee gën a dëng ndax maanaam dóor du loolu mooy éduquer nit ndax bëri na pàcc yu nga xamee tey ji nii mu ngi ko ñëw xale bi ba tey ji nii lu bëri dootu ko def mu ragal ko mais pas dóor ndax dóor day tax nga dërkis te boo dërkisee problème day am dóor gi dootu la safati léegi nag nit bu lay dóor dóor bu safat dina dóor ba yaakaar ne yow jooyoo dafoo dara du kon ne di dóor moo indi dee mooy li ma wax rek xam nga maanaam tey ji nii bëri na si ñu nga xam ne dañ ci juux ndax yomb na nit yi dañuy am seen doom mu ñëw kii ñu yóbbu ko daara yow nga ñëw tey ji nii li sa jàng du sori nga ñëw samp daara commencé jàngale ñaar ñett nit mbooloo bi ñëw bëri ca ñu ne waaw sëriñ la alors que loolu noonu yow mi yow mi koy def yow tarbiyoo ko ndax dafa am leen loo xam ne il faut nga tarbiyoo ko boo ko tarbiyoo fi nga ko war a tarbiyoo dina tax tey jii nii yow di nga mën tarbiyoo ñeneen moo tax man la ñooñu noonu dañ ci juux rek waaye bokkuñu si. man def naa daara 1971. daara dëmb ak daara tey dafa am différence parce que daara dëmb dañ daan toog ñi nga xamante ne seen waajur dañoo jur seen doom te matlewuñu da nga daan gis kër yi dañ daan togg añ kër ku nekk tibb bool indi ci daara ñu lekk añ tëdd jàng. wàcc jot nga dem sa kër am na ñoo xamante ne dañ la naan comme yow fii sa kër sorul dama ngaa ñi dellu soit mais man musuma jël pot dem yalwaani daara li fi am démb moom ñaaw na trop ñu koy ñaaw parce que euh, c'est des choses yoo xam ne mu ngi am fii si Sénégal mais pour man bettul kenn warutul bett kenn aussi parce que toll nañu à un moment boo xam ne fii Sénégal lépp lu ñaawteef lu fiy war a mun a am warutul bett kenn parce que fuite de responsabilité yi am si parents yi léegi si gouvernement bi si askan bi moo commencé jéggi dayoo ba xam ne ne xale yi léegi pratiquement mun nañ ne ñu si bëri ñoom ñooy yar seen bopp am na nag benn occasion occasion bi dina ma permettre sama vraiment ma lancer benn message boo xam ne vraiment bi may nekk primaire point si li ñu gën a dimbali si àdduna tey ba yàlla def ñu nekk si euh, situation yooyu loolu laa bëggoon au moins ma lancer si benn message pour gouvernement bi su ko mënee recommencer teg ko ci yoon affaire yi man pour man dina war a mën a changer parce que ñun en personne bi ñuy doon ay tuuti tànk di jàng wax dëgg yàlla am na li ñu doon wax institution civique institution civique boobu chaque jour que Dieu fait saa ñu duggee classe balaa ñuy commencer jàng toujours. leçon morale lañ doon def vis-à-vis ni ñuy comporté woo vers les parents kër ga ak mbedd beeg ak tout donc gis nga jàngat boobu nekkoon na loo xam ne vraiment lu am solo loo xam ne daf doon yar xale di nga doon gis xale boo xam ne sax mun na di yar ay parents si gàttal ngeen baal ma si wax ci tellement que intelligence am dafay romb foo xam ne lu jéggu dayoo la donc su ñu demee ba yooyu yëpp si école bi amatul dimbalatuñu parents yi parce que parents yi aussi tamit mënuñu lépp école suñu demee ba ne jàngale jàngale ça veut dire tout nit ki dang koy jàngal mu am ci xam-xam ba pare am comportement loolu yëpp ci jàngale la bokk mais léegi profit yi pratiquement boo ñëwee li ñuy grève moo ëpp daara yi boo demee aussi tamit li ñuy jàngale du ma ne duñ jàngale mais li ñuy jàngale néew na li ñuy nekk ci mbedd bi di taxawaalu moo ëpp donc xale yi li ñuy jàngat si mbedd bi donc lañ koy gën a mën a jàngatee. bon man nag man si wàllu daara yi dama gis ne ku si nekk boo juree doom boo ko sàmmee comme ni la yàlla sàmmee am si moom toppatoo am si moom toppatoo yàlla yàlla sàmmal la boppam mais bu fekkee ni tamit nga jur ak jur nu mu méttee jigéen jur ak jur nu mu mettee amoo si toppatoo tamit da nga koy layoog sa borom. parce que yàlla dafa am lu wax yàlla def nañ nañu sàmm njaboot sàmm li la wër boo ko defee yàlla dimbali la. daara démb ak daal mooy comme li sama collègue yi wax rek ñun dañ daan jàngi daara dañuy xëy jàngi école wàcc jàngi daara mercredi soir yi amuñu woon temps wu toog suñu wéy jooy woon temps boo xam ne dañuy toog école ba. daara ja ñu loolu lañu xam moo tax Serigne Cheikh lépp loo gis tey jii ni mu am Serigne Cheikh bu baax ma lii yëpp lii lépp waxoon na ku déglu conférence am yi kaset yi mu teg boo si seetloo di nga gis lii. war nañ jël ay mesures yoo xam ne vraiment amul teelu ginnaaw c'est pas parce que bu ñu laalee daara aussi man ñun ñëpp ay musulman lañ c'est pas parce que bu ñu laalee daara rek. ñëpp jóg naan ay daara yi waruñ ko laa waruñ ko kii dégg c'est bien vrai que gars yi war nañu mun a yemale mais nag daara dafa nekk loo xam ne si suñ côté la ñun Sénégal ñoo ko war a mun a gérer d'une manière boo xam ne vraiment ñëpp ay sawar sax yóbbu fa seen doom mais si ay jëfin yu rafet di ko teg si ay yoon di ko niñ koy waxatee sa si gàttal euh, di ko suivre dina manière boo xam ne ku ko gis di nga am courage sax jël sa doom mu dem foofu sax pour mu am fa xam-xam adduna ak jàngat bon def naa ko mais ñun suñu daara pratiquement ak daara yi bokkul ñun daara koñ lañ def c'est-à-dire chaque euh, période yooyu chaque fois koñ boo gis jàkka ji wala ci koñ bi daf doon am benn euh, ustaas boo xam ne dafay ñëw pour jàngal ñu alxuraan ni ñu jullee suñu diineeg yooyu yëpp bu ñu paree ku si nekk ñibbi sa kër ngoon si nga gont si waat boo amul école noonu lañ doon def les jours euh, jour ouvrable bi daal lañ dul woon kii mais jour kii dañ doon dem di jàngat pour mun xam suñuy dine ak mun a xam alxuraan te loolu vraiment gis naa ne pratiquement léegi affaire yi dafa changé nu mu nu mu demee woon man ba mu juddoo ba léegi su daara laa xam xaw ma lu du daara xam ne alxuraan moom ñëpp xam ne ne alxuraan dafa métti aw alxuraan kenn amul ku am bu sedd ku ñu gën mais di suñu sàng ñëpp di roy su moom bañ kaay jox aw alxuraan ñëpp xam nañ lu si daj ñëpp xam nañ ne lu si daj dasee sonnoon dem na ba fu xam ni mu ñëw na na man dama joom suñu yaay xëy jot na ko déedéet yow doo joom yaa gën su ñëpp te lu luñ ko doon jox iqara kese ñu koy doon jox te damaa dégg gaay nee na benn dong daal bu mokkal alxuraan dana tax fukki ñu bokk si ñoom waroon na dugg safar alxuraan ju mu mokkal ñoom ñëpp yaa daneen si wër yóbbu leen àjjana ah parce que tey jii nii parce que jii nii ñun ñëpp ku si nekk bu gëmee yàlla def la yàlla bëgg ñu bàyyi tere yi bu ñu bàyyi tere yi def li yàlla bëgg léppay naat daara ji nit ñi dinañ jàng yàlla dolli leen xam-xam xam-xam bi nga xam dañ ko mën a jëfee ëllëg parce que tey jii magum tey yi jàngale suba xale yi tey ñooy doon magum magum suba bon tey jii nii lépp a war a rafet. solution bi léegi lenn la bu daaray yi daara yi ñiy jël seen doom yi tamit di ko fa sànni te duñ te amul suivi tam amul njëriñ yow tey jii nii boo jëlee sa doom yow mu leen ne dund lañ la laaj xam alxuraan kenn mënu ko fay ah alxuraan kenn amul payam kon dund bi war si sa njaboot. bi nga yóbbu foofu boo ko indee man ma indi keneen indi yoo nga indi keneen bu yàggee buñ ko boolee xale yi dinañ rek ba duñ dem yor pot di saraxu ji. non lu def taal bi moom am na lu ma ànd am na lu ma ànd waaye mag eh, moom état bi fekkoon nu muy dimbali France yi mu ngi koy ku noon daal daal daa avancé waaye léegi bu ñu xoolee daal su tumuraanke la man damay faral di wax ne bu. problème amee duñu wax neen dem su ba neen neen wax neen daay mi ñu jël seen cours ñaan yàlla loolu dañuy wax bu bu dee imaam yi yaakaar bu jumaa bu jotee imaam yi yaakaar suñ borom xam-xam yi nit ñi sukk dem am soxla dem si ñoom muy ne ñaanal xam lu dul alxuraan man maa ngi ne dama daan dund lépp dama daan xëy dam tool sum ma wàcc ñëw jàng su ma ñëw jàng maam lóob da lay jàng pour ëdduna pour ëllëg foo ne foo dam man faay ne man dóor niñ ma ñàkk niñ maay dóor xamu tax yenn saa yu si ëpp dañ ma daan xuppural dañ may xupp su ma xuppee ma jàq moo ko ma sama saab ñu xupp ma jàq ku bu ëllëgee su ma ñëwee dinaa rayante pour mokkal dóor moom buñ ko mënoon wàññi ñi jël waaye état moom tim gënoon ma jàppale daaw itam daañu jël. voilà chers téléspectateurs ñoo ko déggandoo li la leen indiloon tey ñu ngi leen di jox dig daje beneen yoon ci yeneen itam. aimez cette vidéo n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.